déguerpissement bi dañ koo def nii sommation nii avertissement ba pare am na ñoo xamante ne ay massa tablier yu mel ni comme beaucoup de sites yoo xamante ni ñoom ñi ngi ñi ngi continuer seen liggéey sa ñun dañoo déguerpir yaakaar naa déguerpissement boo demee da koy def da ngay yemale ñëpp comme ñun ñëpp ay massa tablier nga déguerpir ñii tout le monde mais déguerpir ñii bàyyi ñi loolu c'est pas normal ñun ñëpp ñoo yem même d'égalité ñun ñëpp ay sénégalais lañ fii nii boo xoolee am na ay xale yu bëri yoo xam ne dañoo dugg si gaal gi ba am nañ ay trois morts yoo xam ne ñu ngi dugg si gaal gi moment bii ñu toll nga xam ni moment bii nga xamante ni maire Alioune Ndoye dafa waxoon bala muy dëgër Pire Calaris dina ñu recensé defal ñu site bi nga xam ne moo nekk Petersen recasé ñu doog a dëgër Pire wala mu doog mais dëgër Pire maa boo xamante ni amoon avertissement amul sommation ba pare suñuy bagage yoo xamante ni am na ñoo xam ne ay kantig na ñu tëj ko voyage yi ñëwagul ñii ñu ngi dëkk ba ñii danoo tëdd feebar pali bi jàppaleen leen comprendre nga ñu ñëw même pas deux heures de temps ñu yàq ay millions yoo xamante ni ay jeunes yoo xam ne ay jeunes sénégalais yoo xam ne di seen doole comprendre nga loolu c'est pas normal dañ koy ñaawlu tey dañ koy ñaawlu ëllëg comprendre nga maire Alioune xaw ma cadre de vie xaw ma nan xoolaat solution boo xamante ni fii dafa am ay jeunes yoo xam ni plus de deux mille jeunes ñooy ñooy xëy fii ñu xëy fii kon loolu c'est pas normal tey c'est pas normal suba ñun nag li mu mën mooy woo presse bi nga xamante ni ñun suñu suñu suñu suñu baat jotul fépp yéen seen baat jonne leen li mu bëgg mooy na ko àdduna bépp dégg ñu xam ne lii ñu def nii ay citoyens sénégalais lañ ko def ay xale père de famille lañ ko def ay jeunes lañ ko def jeunes yoo xamante ni mënoon nañ di sàcc wala ñuy agressé defuñu ko ñuy daan seen doole di mëne seen vie di gagné seen vie millions yi dafa bëri ñoo xam seen kër sa yow mënoo avertir la ngay ñëw di rawale sa bagage bëgg a rawale bagage keneen moo tax lifi yàq si ay millions bëri na sa place doona am valeur am na ñoo xam ne xottu cantine rek ay millions la comprendre nga amoon courant am wifi am lépp ñu dikk am na ñoo xam ne am na kenn koo xamante ni wi wéef la yor wéef wéef wéef wéef la yor bàyyi fa xaalisam wéef place wéef ak place orange money avertir dafa ñu ko dara noonu la ñëw bombardé ko te loolu c'est pas normal ñu ngi koy ñaawlu di ko ñaawlu di ko ñaawlu di wax président de la république xam ne ñun ñëpp ay citoyen na ay sénégalais jeunes yoo xamante ni dañoo nekk di liggéey mu trouver solution si jeunes yi fii réew mu toll yaakaar naa dëgg ak waru fay am réew mi xale yi koo gis sat deux jours ñu dégg plus de mille personnes dee si géej gi mënoon nañoo dem si géej gi comme suñuy morom mais defuñu ko danoo nekk waxuñu bu ñu fi kenn jële mais bala nga ñu fiy jële nga jox nga bala ñu ko fiy jële nga jox ñu sommation wala nga jox ñu avertissement wala nga recasé ñu parce que maire Alioune Ndoye din mujjee wax ak moom mooy bala mu leen fee jële bala ñun fee jëlee dinañu recasé deful loolu ñëw def recasé def déguerpissement sans avertir sans sans kii bëri na yaa 150 cantines ëpp na ko sax sans plus de plus de 150 cantines waaw merci merci